jëm ci njabootuk waa kër maam Ibra ma Ibrahima Mbacke Fati nuyoo bi nag nee na ci sëñ Abbas Mbacke da koy tekki loxob sëriñ Bachirou Mbacke waaw da koy tekki loxob sëriñ Bachirou Mbacke ak rakkam yu baax yi mu àndal ak njabootam yi ak taalibe yi mu fi fekk wax ji rafet na lool sell na lool. dégg nañ li wax lépp ci ay dénkaaneem ci ak cantam ci ak ngërëmam tam bàyyi ko ci sëriñ bu tedd ba sëriñ Abdou Latif it di xamle ne ñaari kër yi du ñaari kër genn kër la ndax nee na ba mu doonee gone ba nëgë ni mënta xam ci sëñ wala réew gën a jege sëñ Issa maam Thierno daana ko dégg ci baayam di ko waxtaane di ko dégg ci ay magam ba mu egsi ci moom nee naa maam Thierno royteefam la ci yoonu sëñ Touba nee na la cay firnde mooy kenn mësul dégg Cheikh saa yebal ndaw lu dem fekk sëñ Touba gàbbam wala feneen yor addiye dërëmu addiye wala dara mësuñoo dégg kenn kenn koo xam ni dañ naan diw mu am tur amu sant Cheikh Issa Diène jox ko ay addiya yebal ko mu fekk sëñ Touba fenn fu mu nekk lu dul lim am lépp di ko liggéey. ci loxob maam na la koy teg bu ko tegee xam na ne àgg na ci loxob Serigne Touba maam Thierno nag doy na roy téef ndax ku Serigne Touba wax ni ak ndawam ba ci ak mbagam musta waroog man ci dara kooku jàpp ci moom jàpp nga ci Serigne Touba Serigne bi waxit ni mooy loxam përgum di jooram loolu ci ak déggin loxam di joor dafa am doole ci doomu aadama ndax teraanga yi nit di jëflante yépp ci ndojoor lay jaaree yaminuhu fiha muslimin rada shimaaluhu fiha li mujrimin li mujrimin rada kon maam na roytee fu Cheikh ci biir kër sëñ Touba li sëriñ Bachir waxit ci njaboot gi sëriñ bi daa mel ne da ci dimbali sëriñ bi ndax loolu wax na ma ko ci dénkaane ñu bàyyi sëñ Touba xel bàyyit islaam ay xel ak i ponkam mooy toot ak tooñ ndax tooñ bari na ci adduna bi lool te yaatu na lool ndax nit soo fonkee sa kilifa doo bëgg kenn wax ko dara dara dara lu naqari war ngaa waggar kilifay yi jàmbur yi lool te war maa leen ndax loolu dina tax ñëw mën na warmaal sa kilifa ba kenn du ko wax lu naqari te loolu bari na lool ci yoon wi booy xool internet yi gis wax yu ñaaw yoo xam ne jaaduwul rafetul nga jëmale ko ci kilifa ak jàmbur loolu li muy tekki day mel ni fonko sa kilifa loolu sëriñ bi nee njaboot gi nañ ko moytu. te daw ko ndax tooñ dafa jaaduwul te loolu yaatu na lool duñ tudd kenn duñ wax kenn waaye booy kilifa rek da ngay daal di gis nit ku jàpp kilifa jàmbur ngëm-ngëmuk jàmbur nga laal ko tuusi ko ci loo xam ne rafetul jubul na leer ni ak loo bari bari mbooloo ak martaba bu la yàlla mën a jox ñooñu danañ fayu ci lu gën a ñaaw jëme ko ci sa kilifa moo xam nekk na moo xam nekkul loolu sëriñ bi nee na nañ koy daw nee na nag mi ngi sant njaboot gi nga xam ne mooy sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo taxawal mbir mi ci ndigal sëriñ bi ak mbokkam yu baax yi ko àndal ñun fekk ndakaaru ci ay sët ak i taalibe ñëpp jàpp nañ ci duñ mën naan diw nee na diw na waaye yëg na ni mbooloo mépp jàpp nañ ci ba niñ ko bëggee ñu amee ko loolu mi ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal di xam leen ne nii rek la wane jikkoy ñaar ñu tedd ñu fi tudd léegi muy Cheikh saa Diène ak maam Cheikh na Thierno Ibra Fati sëriñ tubaa defoon na ñoom loo xam ni ku nekk aji roy aji roy nag day nuru la muy roy di xool ci ñoom seenu doxin ak seenu waxin ak jikko yi làmboo woon ci ay makaarimal axlaax boo ca royee dara rek danga nga nekkub waaye di nga nangoo liggéey waaye di nga nangoo maandu ci saahir ak ci baatin loolu daal sëriñ bi noonu mi ngi leen koy fàttali lu ñu waxati waxati waxati faw ñu tudd loolu ndax loolu moo ñu fi indi gannaaw bi premier ministre sëriñ bi mi ngi lay nuyu di nuyu njiital ki yàlla jox réew mi muy Macky Sall ak premier ministre mi nga xam ne moo la yabal fekk fi sëriñ waxtaar Diène di ko jege président ak sun mbokk mu tedd mi sëriñ bi nee na mi ngi leen di jottali ay nuyoo ak sant nee na digganteem ak président ak premier ministre jàmm rek moo fi dox ndax nee na premier ministre du am ñetti semaine yu mu ñëwul ci moom. yend ci moom benn mu fekkoon ndànd wala mu fekkoon njëna la gan wala mu fekk ko këram gi ci njaareem te loolu El Hadj Seyid Fall mais di meeru dëkk bi xam na ci dara kon daal nee na mi ngi ñaan lépp loo xam ne waaye def na ko ci yéene ko ci bis bi wala nga def ko ci wala nga yéene ko mënoo ko yal na la yàlla fay ba nga donn ci sëriñ Touba ay jikko donn ko ci maam Thierno donn ko ci Cheikh Issa ñu doon waxtaane nee na nag pëstéefub taalu bi mooy nangoo jaamu yàlla nangoo maandu nangoo dal ci lépp loo xam ne amu ci xam-xam kon sëriñ Cheikh sa maam sant na la yaag mbooloo mi nga àndal ñëpp gërëm na la ndax ci tuut tànk yi nga bokk boo yëfu soon doo ñemee jël engagement yi toll nii say mbokk fekk la ci ba nga ko nasee ñëw sama néeg am na lu ma la waxoon noon naa la boo taxawee ci dëgg taxaw taxaw ci siraatal mustaqim du ma ne ñëpp dañ la fekk si waaye ñu bari si dañu ànd ak yow loola am na ndax biir biiru askan taxawal fa dara day xaw a jafe loolu ku jiita ay nit xam nga ci dara am na ñoo xam ne dañ naan day politique rek ñenn ñi ne du sori de ñenn ñi ne daa bëgg a naxaate yooyu yëpp nag ay illa la yoo xëyee boo ko tegee fee féete ak yàlla ak yonante bi yàlla ak sëriñ Touba tax lay jëf tax lay wax nii rek lay demee faaw nit ñi fekk si leen ànd ak yéen ci loolu kon nag ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla. ak topp yàlla ak dongo nangoo doon ab taalibe ab taalibe nag mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi loolu mooy ak taalibe jëfe ndigal yi bàyyi tere yi nag tere ya alxuraan tere jaare ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saabaam ba ñëw ba egsi ci xaadimu rasul mi suñu royteef loola mooy ndigal yi tere ya mooy yañ fa bàyyi woon ñoom daan ko daw di ko dawloo ña àndaloon loolu mooy tere yi